asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi dellu waat nañu ci pàkk bu tedd bii nga xam ne miin nañu fee jële ndigal jëme ko ci bokki taalibe yi nu teewaat tey ànd ko ak kilifa yi nga xam ne ñoom la cheikh mouhamadul muntaxa tànn yàlla na fi yàgg lool te ñu war a jottali ndigal li bàyyi ko ci moom jataay bii di jataay bu ñu miin ci at mu nekk am na ñaari jataay yoo xam ne danañu ko waajal jàng alxuraan ak xasaayid ak sàkk sarax jébbal ko ñu ko yelloo miin nañ ko ci weeru rajab ñaareel bi ci weeru tamxarit wi nga xam ne moom la ñuy moom ci lañ nekk incha allahu taala dibéer ji jëkk ci tamxarit la sëñ bi bëgg ñëpp daje ci jumaa ji ni ñu ko daan defee yendoo jàng alxuraan jàng xasaayit salaatu ala nabi lu baax lu baax lu nekk lu waay xam man ko rek mu nekk ca moo tax nag mu tànn ñii nga xam ne ñoom la ko mos di séqal a jekk doon seen jëwriñ ba yàlla dogal tey moom muy tànn jëwriñ yàlla na yàgg ci barki Serigne Touba moo delluwaat tànn nag koo xam ne yàgg na koo junj ci ay waxtaanam doyloo ko lool Serigne Touba dénk ko daara yi nekk ci dëkk bi yëpp mu di sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ Falilu noo ngi koy ñaanal sunu borom defal ko ndam ci liggéey bi yaakaar yaakaari mag ñi ak yéeneem yàlla na ko yàlla dëppale ci barke sëriñ tubaa moom la ñuy jébbal kàddu gi mu leeral nu woote bi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndigal ñu war a daje dibéer incha allahu taala ci pénc mi. bokki jullit yi bokki taalibe yëpp gannaaw bu nu sant yàlla sunu boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba di feddali sunu taalibe ci moom di ko seereel jëmm ji nga xam ne moom na fa yabal si mu Seex Muhammadul Muntaxa mi ko fi nekkal nun taalibe yëpp noo ngi jottali ab nuyoom di jottali ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci moom te baaxoo bàyyi ko ci moom naka jekk mu jëm ci fàttali njàngam alxuraan mi nga xam ni baaxoo nañ koo def at mu nekk ci ñaari weer yi nga xam ni bii moo jëkk ci at mi ak bi ci digg bi muy muharram di tam ak rajab ndey muy njàng moo xam ne mii nag waa sëriñ sëriñ Cheikh Cheikh Modou Mountakha mii naka jekk moo ko daan jiite ci ndigalu sëriñ Saalihu daan ko ànd ak waa rabitatul madaris alquraaniyya fi fi fi Sénégal waaye faraf bi nekk Touba am ci cër bu rëy rëy boo xam ne bii ñoo ko daan doxal ba sëñ Saliou joxoon lañ ci ndigal ñu ànd ko sëriñ basiiru Mbacke mu sëriñ Fallilou ak sëriñ basiiru Mbacke moom sëñ Abibou Mbacke ak sëñ Xaari Jaxate ak ñi ñu àndal ñëpp sëñ bi bàyyi woon ko seen loxo ñu di ko doxal daan ma yebal di ma boole ak ñoom ma ànd ak sëñ taxaa moom sëñ Mamor Fakala ak sëñ Seex doomam ñu ñu daan ko ànd naka jekk di ko ko jottaleel ren jii nag mu boole ma ak sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif ngir mu teewal ko fi doon fi léppam ñu wax ci kàddoom ndigal li nga xam ne moom moom moo tax li tax mu joxe ko li tax mu joxe ko nag moom mooy na ko kilifa yu baax daan defee rek ñoom dañuy ñoo xam ni seen lépp seen bëgg-bëgg bépp mooy jullit yi jariñu mooy jullit yi tegu ci aw yoon mooy jullit yi am xéewal mooy jullit yi mucc moo tax lenn lépp lu ñu xool ba xam ne lii bu ñu ko defee am mucc ami xéewal ñu xeetal leen ci loolu moo waral seen li wax li li li mu leen di mu ñu digal muy njàng moo xam ne mii dañ koo baaxoo def at mu nekk bu maxaram teroo mu jàpp bis bu rajab teroo mu jàpp bis jëlee ko ca kilifa yu baax yooyee muy dox ba nëga ni ren jii nag mu jàpp ko dibéer jii di ñëw jëkk ci tamxarit bi mu wax ni bu dibéer jaa na ñëpp daje ku ku man ñëw ci jumaa ji ku ko mënut foo ma nekk jumaa joo nekk wala daara joo nekk wala daayira boo nekk wala foo mën a nekk ñëpp na la ko boole jullit yeeg taalib yeeg ñëpp bàyyiwul kenn ñu bokk jiital nag tuub jëm ci yàlla delloo suñ bokk ci moom ja sàkk sarax balante ak yi dox suñu diggante ñu ñëpp su ko defee door nag jël kaamil bi nag bi nga xam ni mooy léppi Serigne Touba ak xasidaam yi nga xam ne mooy léppam ñu jël ñaar yooyu nag jàng ko yendoo ko jàng ba tisbaar lu ci waay man rek mu def ko ñu sàkku ci nag ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi def jàmm ci àdduna si ñaanal njabootu Serigne Touba gi te jiital ko ci moom nag suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéeyal ko ñun ñëpp nu bokk fekke waaye tekki nag njabootu Serigne Touba yëpp goor ak jigéen tekki taalibi Serigne Touba yëpp tekki julit yëpp tekki kilifa yi diine yëpp kenn bu kenn des loolu mooy yéeneem ci njàng mi mu wax ni nag dafa bëgg bii njàng mi weesu xamoon nañ gis ngeen gis nañ ni meloon waaye bokkut ak mii njàng mi moom mooy njàng bi ñu baaxoo jàng at mu jot njàng moom man nag njàngum istisna la woon moom moo ko seetaloon boppam ba faggul ko boppam xam naa la ma waxoon ca jumaa ji ni leen da seet pësteefu taalibe yi waaye gis na ko ca bu baax jàpp naa ni ndax nañ nañ ko defee kawe kawe na njortam moo tax nag bii nag bokkut ak booba fu waay nekk ci ad ci àdduna si fu waay nekk ci réew mi te di taalibe foo man a nekk fa nga nekk rek mën ko faa defee wax nañ nag itam nag ñi jàng ci jumaa ji képp koo xam ne ki mën ngaa indi ay ay ay xéewal indi leen ko ci jumaa ji suñu borom nga koy defal ak Serigne Touba loo ca man ci ay xéewal yi waa jumaa ji xéewal ñu nekk ci jumaa ji ak ñu nekk foo foo mën a nekk itam muy jumaa muy daara muy daaree kaamil muy muy daayira fu mën a nekk itam mbooloo daje fa di jàng ku fa mën a yóbbu ay tiraanga yóbbu fa ay sarax yóbbu fa ay ñam nit ñi nit ñi barkeelu ca diggal na la nga def ko ndax bee yoon lépp moo ko moo moo moo ko moo ko fasoo woon waaye ñun taalibe yi nag noo ko ñaan ni ko nag suñ bu buñ sañoon taalibe yi di ci barkeelu ñoom ñëpp bee moom lañ ci ci def lépp ci ci ci moom la jóge te ku xam ne gis gis na ni meloon kon nag moo tax dañ te jiimu waaye falal ko taalibe yi bëgg ñëpp barkeelu ci su ko defee fooy di jànge rek loo fa mën a yóbbu ci ay xéewal moo xam ñam la moo xam café la moo xam lu mën a doon nga yóbbu ko fa te def ngir jëmi sëriñ ngir jëmi yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa ak liggéeyal liggéeyal taalibe yi noonu daal la suñ waxoon dañ ko def la ci des ci ci ci ci ci mottali ñu danañ ko bàyyi suñu xel jaxat mu mottali ko waaye ñu xam ni daal sëñ bi moom lu baax la nu bëggal lu baax lu baax la nu wutal suñu njëriñ képp la bëgg nu bokk nu bokk nag ñaanal ko suñu borom jàggal ko fi te wéral ko defal ko jàmmi àdduna ak alaxira dëppale ko ngërëmu sëriñ bi te amal ma may ko kattan goo xam ne gii lépp lu mu bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa dina ko liggéeyal ñun nun nag war nañoo sant yàlla ndax nii mu tànnee ñaari ñaari ñaari ñaari weer yooyu ndax sëñ Tuubaa dafa wax ni salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta ma atisayi mu mel ni kon mu loolu la ñuy loolu la bëgg a dëggalaat ci ci ci ci njàng mi ndax bu ñu jëlee muharram jàng ci ci njëlbeen gi jël rajab jàng ci njëlbeen gi mel ni kon dañoo waroon bu ñuy bu ñuy bu ñu jàngee muharram la jàng ci xasaay lépp la ci ëpp war a doon salawaat yi xasidee salawaat yi bu fekkente ni rajab la la ci ëpp nekk am daax yi su ko defee mu lëkkale ñaar yi nga xam ne noonu la noonu la ko si daan defee noonu daal mooy mooy li nga xam ne mooy ndigal li alxuraan ak xasaayit mooy ñaari salli sëriñ bi nga xam ni lépp lu mu am ci yàlla ci la ko am kon ñu góor góorgóorlu ci baax a baax a baax fas yéene jëfe ndigal li lool daal suñu wax ñu ak mu yàgg fi suñu borom wéral ko moo ngi njaboot suñu tubaab yëpp ñu yàgg koo def ak àgg ca bis baak jàmm def ko na mu ko bëgg ak jàmm ñaan itam nag nawet bi ni mu tàmbalee ku ne xam ne ne ba ba muy digle ñaan yooyee ku ne xam ne gis na li taxoon ma di ko def gis na it gis na it xéewale ca topp boobu it waxoon naa leen ni leen bu beroon fi ruqam ñaan su borom suñu borom dana ko may li mu bëgg lépp waaye yéen ñëpp ci yool bi moo tax mu boole ci ñëpp kon nag ñun ñëpp nañ ci bokk maase waat bokk ñaanal ko ñaanal njabootu sëñ tubaa gi ñaanal kilifa diine yi ñaanal jullit yëpp suñu borom def fi jàmm def fi xéewal barkab sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf ñu bàyyi sëñ bi kàddu gi ak sëñ xaar yi jaxatu mottali bu noppee sëñ si Abdou Latif mi nga xam ne ñëw na fi moom itam wax ci ay kàddu yu gàtt ci aw turam ñu ñaan ñaan teewee ko nag ñu déwén wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen balaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal. di jiital ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram gën koo kàttanal ba liggéey lislaam bi nekk ci loxoom yóbbu ko fu kaw njot yëpp te nandu ko moom ci barkib sëriñ bi. Mm. Eh, ni ko sëriñ Mamor waxe waxtu wu nekk ñoom seen itte du dara lu rek. luy jariñ nit ñi lu leen di xëccal njariñ ak lu leen di fegal lor lii nag miin nañ ko bu baax a baax sëriñ bi dafa bëgg dibeer jii di ñëw nga xam ne mooy jëkk ci weeru tam xarit wi mën naa doon juróomi fan ya wala juróom-benn ya eh, tolloog fukki fan ak juróom-benn ci weeru tubaab la 16 septembre eh, ñu maase ci bu ñu xëyee tuubal suñu boroom jéggalu ko eh, barab yépp tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji fii ci Touba waaye yaatal ko ci biir dëkk bi koo xam ne kii mënta ñëw ci jumaa ji barab ba ko gën a jege te jàppandi fa moo xam jumaa la wala jàkka la wala penc muñ baaxoo dajee la ba ci garan place bu ay nit di toog ak daara ju mu doon bis boobu dafa bëgg kenn bu mu ko neenal jataay yépp na fa alxuraan di riir na fa xasiday sëriñ bi di riir ñu tàmbalee ko ci jumaa ji noonu mu ci joxe ndigal mu tàmbalee ci jumaa ji wër ci dëkk bi noonu la ci joxe ndigal mbooleem fu ab murit nekk te yaakaar sañ Tuubaa moo xam ci kër sëñ Tuubaa la wala ci fu mu doon ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye noonu la koy sàkkoo it ci mbokki julit yëpp ñu àndandoo ko muy bis boo xam ne réew mépp day riiraat ci alquran jublu ca toroxlul suñ borom tuubal ko jéggalu ko ñaan suñu borom nawet bi nii mu dikkee mu sottal ko te eh, teñ muurloo ko tam bañ a dajeeg menn rëq wala ruur eh, xarbaax am na fa jëkk sebul ak fa mujj a sebbul yëpp sëriñ baa ngi ñaan tey bëgg ñu fas lépp ñor sont te dara bañ ca gàllankooru euh, yëngatu yii ci réew mi it lépp suñu borom def ko jàmm def ko aw yiw euh, lu ci nekk rek sedd guy bañ romb ko ci jàmm euh, noonu it ku ne xam na ne weer wii moom weeru alxuraan la weeru sëriñ bi la ndax xam ngeen ne ñetti fan yi bisu Cheikh Abdoul Khadir la ñu fasaale ko ci bu baax moom it muy koo xam ne ku ne xam ne digganteem ak alxuraan xisruna muharram mi ngi ñëw di màggal gu jëkk ku ne xam ne ne ci la borom dëkk bi ñëwoon ci dëkk bi kon yooyu yëpp di ay yëngatu yoo xam ne lu ci nekk eh, sëriñ bi sàkku nañu fasaale ko ci fu ñu ko ciy jàngee ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi waaye yaatal pas-pas bi ni ko sëriñ Maam Moor waxee jiital ko ci moom sëriñ bii ñaanal ko eh, yéeneem dal ko ku ne xam na ne bu ko yéeneem dalee ñëpp ñu bëgg danañ ko am ndax yéeneem moo ëpp yéene yëpp gën a sell yéene yëpp lim yéene ci sëñ yàlla ko yàlla defal loolu sëriñ Mamoor na ne mi ngi sàkku ci taalibe yëpp ñu fasal ko ci lool yi fasal loolu njaboot ko sëriñ Tuubaa gépp fasal ko kilifa yi diine yi kilifa gu fi nekk fam fa ne suñu borom may ko ndam ca euh, liggéey ba mu nekk te liggéey yëpp liggéeyu lislaam la waaye defal jàmmit njabootuk lislaam gépp euh, def ay koom ak xéewal te xiir ci ñu jaamoo ko yàlla kon euh, mu bëgg nag su mbooloo mi xëyee dem ci barab yi di jàng alquran tàmbalee ko ci jumaa ji ak beneen barab bu mu doon su dee ci dëkk bi sëñ mamoor wax na ko yoon bee sëriñ bi defal na ko boppam ba mu àgg waaye gannaaw bi mel na ne am na taalibe yu bari yu yëglu ne bëggoon nañ bu sëriñ bi santaaneetee lu mel nii mu mu may leen nag ñu am ndigalal ñoom it man caa barkeelu sëriñ bi xam ne lu taalibe yi bëgg tamit njariñ mu nangul leen ko ba tax tey jii mu ubbi buntu boobu ne képp ku ko man na waajal ay ñam ñu tàmbalee ko ci jumaa ji waaye ak beneen barab bu mu doon moo xam da ngaa dend ak daara da dend ak pénc da ngaa dend ak am mbaar fu waay nekk te ñuy jàng ne fa daal lu waay man ci loo xam ne lu dee si terale nit la na ko fa yóbbu ndax téere bi lañ fay jàng su ko defee ñu fas ko boole ci ak tuub ak toroxlu dellu ci suñ borom ñaan ko njëgal ñaan ko yërmande ñaan ko jàmme àddina ak alaxira kon sëriñ bi nee na loolu lay sant mboole loolu lay digal mboolem kuy ab taalibe di ko sàkku ci mboolem kuy ab jullit ci biir réew mi ak ci bitim réew ci kër sëñ Tuubaa yi ci jumaa yi ci jàkka yi ci barabu dajewukaay yépp Eh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. def naa nu sof sunub nuyoo ci nuyoo sëriñ Maamoor sof suñuy kàddu ci ay kàddoom ndam tàmbale woon rek ne la ñuy wax nu itam day ndigal ndigal faaw nu jëm koo jëfe waaye li matoon wax lépp sëriñ Maamoor wax na sëriñ xaali ak gale ga jot na sëkk kon de bu ma amee lu ma ciy dolli xanaa mooy jottali rek cantuk Seex Mamadul Muntaxa ak cantam gu matale ci waa lislaam bépp ak cantam gu matale ci bokki taalibe yëpp waaye ak cantam gu matale ci bokki boppam yii ndax nii ñu koy yéenee ndam ak nii ñu ko jàppale ak nii ñu koy taxawoo ci lu mën a doon kenn ku nekk loo noo jàppee ne mbir mi noonu lay gën a rafete wala noonu lay gën a mate sa yitte jëpp nga jëmale ko ci loola te loolu yéene sëriñ Muntaxa ndam rek la waaye sëriñ Muntaxa xam ne loolu bu baax a baax a sedd na bu baax xelam dal na lool ni mu koy waxee liggéey sëriñ Tuubaa bi rekk ko ñor wet gu nekk féete nañ ko fa bokkam yi féete nañ ko fépp jàppale nañ ko fépp kon jataay bii waaw ma tudd ci sëriñ Maamoor mii te léegi rek sëriñ Muntaxa mi ngi koy seereel Serigne Moustapha Diakhaté mii ba mu fa ñëwee di ko seeral ak cantam ci Serigne Mamor di ko seeral taxawaayu Serigne ko tax di ko seeral bég bég nu xelam dale ci taxawaayu Serigne Mamor bu rafet loolu jotaay bii wane waat na ko kàddoom yi wane waat na ko. mbokk yi kon dégg ngeen kàddu yooyu bàyyi ko ci kilifa yi nga xam ne ñoom la Serigne Mountakha tànn jiital ci rakkam ju baax ji di Serigne Mamor Mbacké moom Serigne Falilou nu santaat sunu borom bu baax subhaanahu wa te dolli koo ñaanal yàgg jamono jii nu nekk am fi kilifa gu mel ni moom yombul ku ko yàlla war sëgale war ngaa sant yàlla loo loo man te ñaanal ko mu gën fee yàgg ndax kilifa goo xam ne adduna dëddu na ko ba noppi mu dëddu adduna yombul te moom la adduna moom la lislaam soxla Cheikh Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal yàlla na ko yàlla yàggal rakkam yi topp ci ginnaawam nga xam ne lépp lu yéeneem lépp lu yitteem mooy seen yéene ñoom itam yàlla na yàlla àggali ko kon nu jàppaat ndigal li rek moo di dibir ji ni seenu incha allahu taala ñëpp daje ci jàkka ji ci jumaa ji ci penc mi ak beneen barab boo xam ne mbooloo mën nañ faa daje ñu góorgóorlu ci alxuraan ak xasida nii ko sëriñ bi waxee ak loo xam ne mën naa teral ñu fay teew noo ngi sàkku sunu borom tabaraka wa taala mu gën fa yàggal Seex Muntaxa te xiir nu ci jëfe ndigalam te may nu kàttan gu nu mën a jëfe ndigalam ci barke sëriñ Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu